Sénégal 4 TV yow yakum. ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bouton abonnement bi teg bul fàtte activé walla cloche de notification bi de ngir bañ tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi et maintenant bon visionnage asalaamaaleykum mbokki internet yu Sénégal 4 TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di jox kenn ku ci nekk ci yéen sa wàccuwaay amaat mbégte ak contentement dikkat ak yéen ci seen chronique du jour. chronique du jour ngeen koy am ay bisi yi nekk ci chaîne bi nga xam ne moom ngeen tànnal seen bopp di Sénégal 4 TV di ci ànd ak seen mbokk seen xarit seen soppe seen doomu ndey Assane Dia alias Azou le Pro. mbokk yi tey seen chronique di jour ñu dikk rek bëgg a def benn taxaw seetlu ci vidéo bi nga xamante ne nii di euh, diggante démb ak tey euh, daanaka wër na àdduna warngal kàpp euh, ñëpp jot nañu ci dégg nañu kàddu yi nga xamante ne nii soxna si yëkkati na ko jëmale ko rek ci ki nga xamante ne nii moom moo di Ousmane Sonko. ci ak ndëgg sërëx ak itam dil woo xamante ne nii nee na yooyu yaay ña ngi koy tegal ki nga xamante ne nii moo di Ousmane Sonko tey itam sax def nañ ko ko ba noppi waaye ñu gis ni lu matul sax waxtu euh, dafa daal di defaat beneen vidéo génnaat defaat beneen sorti euh, di jéggalu sénégalais yi waaye itam tiir boppam euh, xamal askan wi xamal àdduna ni la mu doon wax ay ay ay fen la ay fet la Euh, li ñu ci attiré nag suñu attention ba tax ñu bëgg ci def taxaw seetlu du kàddu yi mu wax déedéet ndax ñun euh, yàlla dogal na ni bu wax jubee euh, dañu koy càmbar dégloo ko ak xel te bañ di ko dégloo ak xol automatiquement que vidéo bi dugg ci réseaux sociaux yi ñu commencé di ko partager première impression bi ñu ci njëkk am mooy que ni c'est impossible d'abord avant que dara di xew wala boog toog di xaar pour mën a gis pour mën a gëm ndax tam nag euh, lu waxati waxati Sénégal maye na fi xam-xam ni même si on mu doon wax ni dëgg la am na ñoo bis bu tàbbee ci loxo ak la différence ci lan moo ciy dëgg ak lan moo ay donc wu ci mais li ci attiré suñu attention ba tax ñu def ci dafa def déclaration après bu gën a garaaw sax li mu wax ci biir vidéo bi te xëy ñu baree baree bare bàyyiwuñ ci xel comme ni koy defee ay bisi nekk bu wax jubee dañu koy teg ci kaw table bi dogot dogatee ko kenn ku ci nekk nag loo ci bàyyiwul woon xel sax nga mën ko cee bàyyi xel ndax nee naa ba tey ek dama koy répéter saa su nekk le vrai sens de la lecture ne s'écrit pas dans les lignes mais dans les entre-lignes nit ki bu dee addu di wax dangay ngay fexe déglu la mu waxul foofu la njëriñu wax la wax ja di nekk yuq wa solo sa foofu la nekk ndaw si daf ni ki ko jox information bi yàgg na di ko jox ay information muy nekk lu wér te wóor muy benn ñaareel bi mu ni yàgg na moom di ko jox xaalis ngir ak fay gu mu koy fay information yam ko daan jox ba ci information bi pour que ñu jox ko ko dafa defal waa versement maanaam xaalis la ko fay pour kooku jox ko information bu ni toll fi ñu waral nag jëmal sunu jàngat mooy ndaw si moom ci jëmi boppam moom mooy kan c'est très important elle est qui ba mu ba am information jaral ko muy def versement xaalis pour am information jaral ko muy fay nit pour ñu koy informer nañ ñu wax ndaw ci mom moy kan parce que elle est sortie de nulle part man de ma part personnelle avant que femme bi di def sortem bi musuma ko wona gis xawma kan la nañ ma wax ci commentaire mom moy kan d'abord ba am information parce que nee même bu problème bi mom yag na di fay xaliss ñukoy jox ay information ci moom mooy kan ba am information jaral na ko pour mu fay xaalis pour am information muy benn ñaareel bi mooy kan moo koy jox information yi kan mooy jox ndaw si information yi mayu ko ko te ko koy jaay gis nga ni ndaw si amee fulla ak fayda gu toll ni ko may naa la quarante-huit heures maximum nga delloo wat ma sama xaalis sinon dinaa wax yow yaay kan dama ne autorité yi ci dëkk bi nag waroon nañu am fulla ak fayda gu tol ni ni ndaw si yow mit génn def vidéo bi wax ni danga fay xaalis pour ñu jox la information dig ñu wax ki lay informé kan la ndax nag accusation bu rëy la ndaw si def accusation bu rëy rëy rëy rëy la ndaw si def waruñu ko jël à la légère waruñu ko jël à la légère ndax information bu ñu tollu ak fii réew mi tollu ku am sañ-sañu di ko jox nit ci jox bu mu lay jox xaalis koo ko def vidéo def sorti wax ni yàgg nga ma jox ay information ma lay fay xaalis war nañu nag jàmbar nag pour xam koo kuy génne information yi di ko jaay mooy kan dañ ko war a gëstu pour xam ko ndax bu fekkee du information bii nii kese kese kese kese kon li ñu doon roomandaat ci biir réew mi di wax ni la ñuy nas ak a not ci ngir mu war a mën a doxal réew mi ma ngay senn koo ndaw si dut baaram ci kiy senn yëf la bokk fulak fayda ji ndaw si am ni nañ ko na ko delloo xaalisam wax mooy kan na ñi ci war a jóg ci am fulak fayda gu toll ni jàpp ndaw si ne ko nag dig ñu wax ki lay jox information nga di ko jox kan la parce que man dama am droit pour xam kooku kan la yow mii toog dama am droit pour xam kooku kan la ndax nekkatul lu nekkatul laa ni lu nëbb ndax bu ngeen càmbaree première vidéo wu ndaw si assurance bi ndaw si doon waxee di wax naan sama aqullahi taala di wax ni ak sama bakkanu doom yàlla naa jóge fii dem suuli ji samay doom noonu la ko waxe kon ngeen xam ni li muy wax lu ko wir cëng la lan moo tax ba wax ji wir ko cëng mooy ka ko wax mu fay ko yàgg na di ko fay mu di ko wax lu dul deñ yàgg na ko di wax lu dul deñ et elle l'a confirmé mom ndaw si ma nañu dello respecté waat ñu ñun sénégalais nañu dello joxat ñu suñu cër ñun sénégalais nekkatuñ ci dëkk bo xamanteni lu neex way def def sortie def joxe information de taille nit ñi partager ko ci réseaux sociaux yi vidéo bi bi mu avant 23h, heures li mu am ci par na ay millions ay doomu adama gis ko même pas une heure de temps que génnaat vidéo non non non non non euh, dama ma jox ki trompé waaw jox attends dépassé nañu étape étape parce que fi mi da ngay génn def sorti wax la neex waxee ko nu mu la neexee génnaat defaat et on te donne notre pardon comme ça et que ñu baal la noonu noonu noonu démb xam nga sa sorti bi nga def lan la yàq ci réew jéem nga ba analyser et léegi defaat defaat vidéo damaa juum dama doon fen loolu mooy tax mu mu mu mu effacé ah non gis nga il faut que sanction yi ñuy teg ci yu mel di sévère loolu mooy tax ba kenan ku ku mu doon ëllëg nga di ko waaj di nga ko xool xoolaat ko information bu baaxul information bu jubul information bu ñu inventé mën naa tukkalum réew mën na tukkalum réew laa ne ndax démb démb ndaw si li mu wax bu amoon benn malfaiteur bu ci jotoon jël ay defar montage vidéo am Ousmane Sonko ak Adji Sarr ak nangam ak sàngam dugal automatiquement adduna yépp ay gëm ni li ndaw si waxoon dëgg la nañ ci bàyyi xel ni ci war a jóg nañ ci jóg coow li fii mu toll laa ni lépp lu ci waay di wax dafa war a doon lu rafet lépp lu ci waay di wax dafa war a luy apaiser tension bi mais pas ngay def say inventé di di di sos pour lu koy gën a taal pour lu koy gën a xamb il faut que ça cesse il faut que ça cesse je demande solennellement ñi nga xamanteni ñom ñoo wëra gëstu lu ñu mel nanu ba xam ndaw si ba xam lan mo am ban intérêt la am ci di fay des pour am ay information information yoy bu ko amé lan la koy doyé fan la ko nañ gëstu ki koy jox information information on a le droit de le savoir et que am une capacité pour nak am capacité pour gëstu Nous am une capacité am Nous ay moyens yoo xamni war ngeen ba mu leer aller bi mi ngi bëgg bëri aller bi la ni mi ngi bëgg nak bëri lu neex def kenn ku ci nekk nekk journaliste sa bopp kenn ku ci nekk am droit joxe information kenn ku ci nekk am droit inventer lu la neex wax lu la neex te dara du la ci fekk maa ngi tubaat bu baax baax a baax tey jégalu ci euh, kàddu yu xaw a ñagas yi ñu ngi ciy tuub bu wér a wér di ci jégalu euh, lépp ñu ci wax rek muy lu jub ngeen xam ni ndimbal ak kattanal borom bi la lu ñu ci wax itam nag muy lu dëng mbaalu sataanu euh, ñu ngi koy tubaat bu baax a baax di ko jégalu ki sunu matadi la ak sunu gàtt xam-xam di leen jox dig daje incha allahu rabbi ay bis di ñëw ci beneen chronique ci beneen vidéo asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu